Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf wàllub yoon la yéenekaay yu bëri xëyee tey réew mi quotidien di wax ci la ñu doon toppee Cheikh Yérim Seck ak Bougane Gueye Dany mujj gi bàyyi nañ leen yéenekaay groupe Rewmi Network bi di xam ne ni kon procureur ci boppam moo daal di jël dogal lépp mu teg ko ci suuf ndax seeni dossier dañu ko classé sans suite bis bi le jour ne ko mu mel ni jamono ji yëf yi seddatina ndax procureur de la république mi classé dossier yooyu yu sans suite mu mel ni li procureur de la république def vox populi dafa gis ni coow lii ci boppam la daa di seddal jamono ji ndax mbiram Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck ak ki nga xamante ne moom mooy Kader gannaaw loole waa CAP gis ni lii ab ndam la ngir ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy xeex lépp lu jëm ci liberté de presse ak liberté d'opinion fii ci réew mi laas yéene gis ni état ci boppam moo jël dogal teg ya fii ci suuf li procureur jël dogal teg ya fii ci suuf les yu bëri la ci seddal coow li wala boog moom procureur dafay défier autorité yi beneen laaj bi mooy ndaxam ci ay loi képp la ñu daal di tënku li am ba am suñu naataangooy dañu gis ni moom Ibrahima Ndoye tàmbale naa wone boppam ci ndombal tànk procureur bi ñu ko dénk moom procureur yor-yor bi dafa gis ni li mu def démb mooy wane ni daal liggéeyam daf ko def ci indépendance tënkuwul ci coobare ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo jiite nguur gi donte bàyyi nañu ñi ñu doon toppee délit d'opinion waaye le li mu gis ni mooy coow ndax dafa mel ni liberté bi ci boppam la ñu daal di ngànk jamono ji yénekaay bi di xam ne ci beneen fànn ni Madiambal Diagne ca jamono jooje démb dañ ko tere mu génn réew mi ndax ca ay AIBD lañu ko daal di bloqué les échos dëggal ko ne Madiambal Diagne taskatu xibaar bi yënguy ci wàllu politique démb ci aéroport bu Diass lañu ko daal di gàntal ne ko mukk du génn réew mi yaana mar génn fa ñu làkk woon ni ki démb l'info yénekaay mooy fësal kàddu yi nga xamante ne kuréel gi ci boppam démb dañu ko daal di yëkkati jëmale ko ci wàllub yoon ak doxalin nguur gu bees gi ñu kon jëmul kër Walf Quotidien yokk ci ni kon Y'en a marre démb yamuñu daal di wane seen nakar ci li ñuy convoqué ak teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay acteurs politiques waaye tamit taskatu xibaar ñoom activistes yi nee ñu duñu nangu ñu daal di jëfandikuwaat justice ngir kon di ko daane ay opposant opposant yi di waajal élection législative yi daal Sud Quotidien ñëwaat ci yooyu la tànneef nga xamante ne fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal lañu koy amal ñuy wax ni processus ngir waajal yëf yi nag ñu ngi ci pàcc yu mujj mujj laata commission bi di fësal liste yi nga xamante kon ñoo ca war a bokk altine gi ñu dëgmal yéene kaay sud bi li mu nemmeeku ba noppi moo di ni jigéen ñi moom niw nañu lool ci li nga xamante moom mooy investiture yi moo tax suñu naataangooy njort ni boo moyul ay liste yu bëri dañu koy invalider maanaam gàntal ndax yooyee dëppoo ñu ak yoon liste yu coalition takku wàllu ba tey mu ngay wéy ci ay coow l'observateur gis ni Macky Sall ci boppam moo nekk ci ay jafe-jafe yu metti jamono ji ndax am ngir Diaw Fabintou Ndiaye Oumar Youm naka noone Abdoulaye Diouf Sarr mu mel nii ci biir APR yéenekaay bi mu ñuy xamal ni ñaxtu yi bëri na fa lool te boo moyul ñu bëri dañuy dumóoyu élection yi Bassirou Diomaye Faye fas yéene dumóoyu ndaje bi nga xamante ne kon Emmanuel Macron moo ko woote enquête yéenekaay duñu xamal ni njiitu réew mu Sénégal teewul ci ndajeb some francophonie bi nga xamante ne ca Paris la France lañu koy amale lu ko dalee Senghor ba ci Macky Sall muy gula tab njiitu réew Sénégal teewewul boobu leen ndaje nga xamante ne réew yu sekk kàllaamay nasaraan ñoo koy amal suñu naataangoo yi gis nii am na ci les waxul FMI moom wax naa ci li tukkee ci audit bi nga xamante ne def nañ ko ci doxalinu réew mi ci wàllu koppar te nguur gi yees gi daal di koy def bis bi le jour di xam ne ni kon kuréel gi bootu ci Bretton Woods daal dinay rafetlu bu baax a baax audit général finance yooyu bu ñu sukkandekoo ci kàddug premier ministre Ousmane Sonko Sonko ci boppam ëllëg ci samedi gi ñu ngi koy xaarandi ci Sikicoor Bassirou Diomaye Faye moom diwaanu Mbour yéene kay des média bi di yëgle ni seen tukki yooyu mu ngi aju rek ci seet seetal école yi nga xamante ne ëllëg la ñu ko fas yéene amal ëllëg la ñu fas yéene rob ak kii nga xamante ne moom mooy Léopold Mendy ñu koy dàkkantele ci turu DJ booy booy réew mi people di ko sargal ak delloo njukkal moom baram baatu wurus bi nga xamante ne animateur la woon bi ñu ràññee lool ci kër gi dëddu àdduna ci talaata gi wees njiit la président Mbagnick Diop ak i naataangoom yépp woy ba tey di ko jooy jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md